ملاسي سلمت كل يوم ويا بنفسي بطي منك يا الله يا مؤمن في جنة بدر ما كدار وابلي الأمن في الدارين يا الله وبالمؤمن لس أبي استراحة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 متكبرون الكل يا الله يا خالق الخلق لما أساء أبدا بالبر والسر والرلوان يا الله يا بارع الخلق خد لنا فدونا وخن لي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 طافت منتمئا عسى الأليم لاسي علمت يا الله خبرت يا قابل أسواء وانصرفت لخير نفياك الأدار يا الله بسات يا باسط bi mu agsee it ci kër gi ñi nga xam ne ñoo di waa daara Hizbut Tarqiyyah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 loole nag bépp matuwaay boo xam ne kër docteur laaj na ko daañu ko jël di ñaan yàlla ci barkeb Serigne Touba ak soxna Mariama Bousso mu sell mi tëdd ci bërëb bu tedd bi mu jële fi mbas mi ci àddina bépp di ñaan na ñaanalaat Cheikh Mahamadul Muntaxa Mbàkke Bachir mu yàgg fi lool te ànd ak wér wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu xelan muy san waaxib bal fii ka yàlla